saraax la ñuy def ci xew-xewu làmb tey fekk fa combat jànq ba ñuy wàcc ci diggante rëg-rëg ak guy gi le roi di simple ak le roi de la lutte simple du ko dàq guy gi tuddalee rëg-rëg dafa xëy di dànkaafoo ko nappe moom a yóbbu fitu rëg-rëg sa digganteeg rëg-rëg yaa ngi dégg ne ñu ngi koy dox guy gi sa digganteeg rëg-rëg yaa ngi dégg ne amateur yi bëgg nañu ko mu ne leen booy boobu ñu naan mbër la buy dof dof lu ba dugg ci man buy dof dof lu ba jël sama avance dana mere ku ko deful dara buy dof dof lu ba lekk sama avance ma ko jàppee mu jeex sama combat rëg-rëg bu yenn mbir yi laa koy jaarale sempi ba ca kaw dóor ci suuf du ko sañ a bañ gannaaw dañ naan ko mbër la mbër la mu koy def bopp bu rëy bu suñu combat nu jàppante dana xam ne mbër la rëg-rëg xam na ne mënumaa yëngal du ci bëre du ci xeex te sama combat ak moom bu taxawoon danaa samp juróomi minute raag ak moom xam ne du ma moroomam ma yenn ko teg ci suuf sama combat ak moom bu taxawee danañ xam kan mooy yuuxu victoire kan li am ba des mooy na ci bile combat xam na fi mu jóge xam na fi mu jëm xam na li mu daj ci digganteem ak Eumeu Sène Junior bëggul mu dalaat ko xam na li ko daan ci combat ak Eumeu Sène te dootu ko tullanti rax ca dooli ne xam naa mobile 2 seetaan naa ko gis naa ay kombaam jàng naa ko amul surprise ci man ndax wóolu naa sama bopp xam naa li ma bëgg te du ma ci deltu gannaaw maak mobile 2 bu arbitre sifflé ba génn suñu diggante lépp jeex ka jeexal négociation yi ci diggante dab daan ak mbaytin siñor mooy yi daali yi daali ñing ma doon négocier bi le taxawal na ko dab daan bu jam ñaajoog mbaytin siñor bu wàllu la journal bu bari la journal combat moom la amateur yi bëgg moom la nuy waxtaane guy gi rëg-rëg ñépp xam nañ ne jànq la combat buy neex la ñaari combat yi amateur bu ko dégg sa xol sedd beneen ba it combat boo ca teg sa xol sedd Boy Niang 2 Tapha Tine Lac de Guiers 2 yi leen mbër combinaison boo ci def mu neex boo defee Boy Niang 2 mu neex Tapha Tine Lac de Guiers mu neex li nu njortu xalaata guñ ko kay mooy revanche Boy Niang ak Lac de Guiers 2 li xel yi gën a nangu mooy Tapha Tine Lac de Guiers ko neex bu ko neexee bëreg Boy Niang 2 jërë ngeen jëf mbokk yi li moo nekkoon li gën a fës bi ñu leen jox